Euh, dañu gis à chaque fois aussi seen morceau mën na dund 4 euh, ans ba 5 ans mën naa ne à vie euh, te du raaf loolu ban genre liggéey mooy tax artiste bi am ko. waaw bon mooy recherche bi job di wax. Mhm. musique moom dafa am musique boo xam ne musique bu tendance la am musique boo xam ne musique bu am am la. Mhm. donc répertoire Chérif Diop sa brain mhm. donc mun naa ne musique bi ñuy def fii ba cent ans da nga koy mën déglu. parce que musique bi day baax. ci côté mélodie yi ñun ni ñuy waaye dañuy fexee def loo xam ne. donc euh, son bi lu muy gën a dem yow loo koy gën di déglu da nga koy gën a bëgg. Mhm. côté musique bi aussi gars yi dañ ciy liggéey ak ay ingénieurs yu mag yu vraiment yoo xam li ñuy def. Mhm. ba nga xam ne donc nekkul joobu xale quoi parce que ñun mhm. loolu lañ bëgg dañu bëgg ëllëg bu ñu fi jugee ñoo xam ne am na lu ñu fi bàyyi. quoi donc duñ topp mouvance mouvance mouvance ba euh, ba ba xaw a donc def musique bu faible quoi donc musique day am am. loolu moom moo ko fiy mën a bàyyi quoi. Hmm. boo dégloo tey rétro Omar Pène da nga naan waaw est-ce que ingénieurs yi doon arranger musique yi sax ba léegi ñu ngi fi. Hmm, parce que loolu sax moo gën a kawe li fi nekk li gars yi di def nii tey. Hmm. donc ñun ñu ngi jéem a essayer vraiment di def loolu te dañ ci gën a focus quoi. franchement dañ ciy gën a focus. d'accord tey son boo xamante ni financé nga ci lu baree bari euh, mu mu génn lu yàggul mu daal di fay lan la mën a indil artistes yi ay problème bon bon loolu état d'esprit la xam nga xanaa xamoo son son moo gën a mën trahir fii nii. Mm. des fois nga gis benn album boo xam ne morceau bi mm. ngay gën a focus foog ne moom mooy génn def tube. Mm. boobu day génn moom du sax du sax suus bay def tube. Mm-hmm. ñun Linguère moom lay mujjee job ci album melokaan. pour vous dire. Mm-hmm. am na yeneen track yoo xam ne ni ci album bi comme ay soreetul man dama ko laajagoon dama ko gëmoon noonu waaw track bi boo ko gars yi déggee. Mm-hmm. niveau bii bu arrangement bi ni mu dóobee lii vraiment mun na mun na sori quoi. comme xam nga. mais Linguère dañ ci doon foo nii rek. Mhm. moom moo génn def tube trahison gars dañ ci focusoon. Mhm. trahison gars dañ ci focusoon carrément mais boo xoolee ci côté YouTube sax mooy morceau bi gën a. Mhm. faible ci côté nombre de vues ci Cherif Diop sa Brahim. te track la boo xam ne dañ ko gëmoon carrément style musical bi. percussion yi ci def originalité bi ak fii ñu wayee da ngay xam ne ñii dañoo mën a way quoi. xam nga mhm. donc mais affaire bi du loolu quoi mais mhm. boo fekkee ne am nga benn benn maturité musicale mhm. loolu du la def dara ñun ñun du def dara ñun bu ñuy génnee benn affaire par feeling lañ koy génnee quoi comme xam dem nañ ba nekkatuñ fi di lijjanti ay buzz nekka no booy morceau bi mi ngi cartonné wala cartonné wul donc plan de carrière dañu bi yëpp xam nañ yan morceau lañ war a génnee bu nekk ban période nga war a génn ak naka lañ koy génnee donc dañuy topp ligne boobu tey mën nañ génnee daagul par exemple euh, ci un mois waroon am 10 millions de vues. Mhm. un mil un mois ba mul euh, vingt mille vues sax suñu nekk ci. Mhm. du tax du tere ñun ñu continuer wéy bi su suñu suñu suñu chemin quoi. Mhm. tu vois donc euh, euh, ci benn organisation bu bu presse ci la ñu nekk di ko suivre ba nga xam ne tey loolu du ñu du ñu déstabiliser quoi. tey même boo ko fiilul d'ici peu de temps dalay dugg mënoo ci dara. mooy mooy am bi ñu lay wax quoi. donc am na ñoo xam ne nag bon dañuy xaar génne benn affaire rek mu claté. Mhm. mun na la déstabiliser mun na la xaw a mais lépp état d'esprit di wax gars yi nañu job pour job. bu ñu job pour buzz. nañu job parce que li ñuy def dañ ko fiil nañu job parce que dañu respecté suñu public nañu job parce dañu suñu ginnaaw ñoo xam ne dañuy xaar rek ñu ñuy def benn benn benn jox leen ko ñoom ñu consommé ko li ñuy def pour ñoom la mais du pour ñun. Mhm. pour vous benn affaire instant bii ñu ngi ci focus ci beneen clip bu a génn fàtte nañ daagu. wallaahi suñu réunion démb ci loolu lañ nekkoon track bi ci war a topp. pour wax ne gars yi ñun moomuñu ko gars yi ñoo ko moom jox nañ leen ko ñu ngi ci leneen. d'accord d'accord tey dañuy job ak euh, pour ñi nga xamante ne ñoom ñoo di fans yi waaye aussi da ngeen di job tamit pour concurrent yi. waaw comme yow ni nga ko waxee da ne ndax am na ñoo xam ne bu ñu génnee benn single. pour mhm. affaire de stable bi lim la wax rek état d'esprit la rek. parce mhm. que son moo nekk benn affaire boo xam ne kenn mënu koo natt. am na ñoo xam ne ni am na ci ay artistes yu mag yoo xam ne ni comme mën nañu am benn échec. Mhm. comme ñu doon jouer grand théâtre feesul. Mhm. comprendre loolu mën na fi mën na leen frustré yàq seen mhm. carrière. comme ñu doon génnee album album bi doxul dama mës a déglu Kumba euh, Gawlo mu ne amoon na benn album bu tuddoon euh, circulation xam affaire yooyu noonu. mu ne album bi da cee sonnoon kii nii nee <laughs> album bi dafa mujj duggu même noowu album bi la mujj duggu accident la je pense. ah accident nee na album bi daa mujj accident quoi comprendre nga mu ne loolu bokk na ko lu gën a break genre bu bu nekk loolu nit bu fort day kii quoi mhm. mais loolu ay état d'esprit la parce que euh, soo génnee benn son mhm. comme Vivi comme Viviane des fois mu def ay deux ou trois jours. mu def million de vues mais loolu am na ay revenu financier ok pare loolu neex na tamit ci xol. Mhm. est-ce que comprendre mhm. ku sañoon boo ngay génnee benn affaire rek mu am dix millions de vues. loolu nit bu sañoon da koy def. Mhm. mais tamit. musique musique la da ngay proposer nga sànni. d'accord euh, loolu am na ci solo euh, Chérif Diop am ngeen manager. Euh, nooy instant bi joobuñu ak manager. parce que kii kii kii la ñuy joobal parce que ñu ci côté booking la ñuy joobee quoi. Mhm. instant bi dañoo bëgg a joob ci ay agent mhm. comme benn Jacob dem régler benn deal. Mhm. bu ñëwee lekk benn pourcentage am. benn benn Chérifou régler benn deal wala benn. Euh, Dumbuya wala benn. wala benn mhm. benn coup mhm. quoi. Mhm. parce que instant bi ci loolu lañu bëgg a joobee quoi mais instant bi bokk na am na ay propositions yu ba dem ci guddi rek. ba na ay propositions yu ñëw xam nga dañoo bëgg a joob ak gars yi mais bon ci d'après suñu expérience lim ñu jot a jox ba instant bi dañoo bëgg a ranger waat ci yenn côté yi quoi nga xam ne dinañ mën a rapporter plus de détails. plus comme bu ñu am bu am xam ne ko war a dox ko jox yenn link yi woo benn mhm, mhm. ñu ñu ñu gaawal ko sama cadre mi ngi may signaler que ni sama benn question boo xamante ni il faut ma laaj leen ko ñoom euh, euh, wax naa ko léegi ci wàllu euh, parce que xam nga ñun dañuy nekk ci milieu bi di luqut di xool parce que ñun comme ay mbóot am na loo xamante ni ñu ngi koy faral di gis soit ñuy dégg askan wi di ko wax que ni da ngeen ko ak seen ménageur est-ce que mën nañoo xam ndax loolu dëgg la wala lu gars yi di romandaat la. waaw bon mooy li la job wax ñu ngi doon job euh, ak ma Yacine Gueye. Mhm. vraiment du sax ménager kooku c'est mon frère. vraiment frère la. Mhm. bon on a débuté ensemble. defandoo nañu lu bëri album melokaan ñun ñoo ko jobandoo. Mhm. donc euh, deuxième album Chérif Job sa brain. ménagement jobu ju ci ensemble quoi. comme Job ni mu la ko waxee on a décidé de liggéey bon ci système collégial bi quoi. Mhm, mhm. loolu bon musique nangu na ko quoi. Mhm. tu vois moom ci label bi la nekkoon di gérer artistes yu bëri mais bon situation bi temps bi jot bi mayetu ko lu bëri. vraiment en tant que frère en tant que gentleman. ñu libere ko côté boobu. donc ñun am nañ benn canne d'adresse boo xam ne vraiment mun na gérer lu bëri quoi. tu vois bon. équipe bi fi nekk aussi yaatu nañu mhm. Chérif Rockteam Musique du Chérif Diop Sabren kese mhm. tu vois yeneen artistes ñi ngi fii staff bi ñi ngi fii donc je pense que ne benn appelu Diop Sabren rek mhm. réglé benn situation Chérif Diop Sabren donc Jacob am na temps boo xam ne tey bu ñu ko waxee dama nga traité benn benn benn benn contrat day dem traité ko fii ñu fi nekk ñoo xam ne mun nañu sax ménager Rockteam waxuma la Chérif ak Diop d'accord ñu ngi wax ko ni aussi yéen ak ki nga xam ne moom moo di Dieyla yéen a bokkoon kon staff comme nee nga du ménager waaye Jayla fi la nekkoon ci label bi. Mhm. donc ñun ñoo ko ñun ñoo ko produit premier single am. comme mhm. ni ko Sénégal yëpp xamee deuxième single ba troisième. Mhm. actuellement nekkatul ci ci ci label bi quoi. donc je pense que ni bon mi ngi ci chemin wam te ñun yéene bi ñu amoon. Euh, ba léegi loolu moo fi nekk objectif bi moom moo nekk musique sénégalaise bi képp ku ñu gis ngay jeune talent mhm. Chérif ak Job sa brain mhm. def li ñu mën a def ba fi ñu mën a yem ñu yem fa parce que affaire bi gunge la te gunge moom doo yegg mhm. da ngay gunge rek ba fi ñu mën a nga yem foofu keneen ñëw yeggali donc yem nañ gunge rek fi ñu mën a yem yem nañ foofu li ñuy ñaan mooy yàlla teg ci loxo yu wóor yu gën a wóor Chérif ak Job sa brain bali des ci yoon bi dara ah. bañ a lëndëm euh, euh, dara bañ a ñagas mu continuer carrière bu leer bu set parce am nañ ci moom yaakaar ndax feexte la solo mais ñu ci bëri tamit dañuy faral di wax que ni euh, yéen ni ngeen bokkee ak Dieyla manager man manager la parce que euh, loolu laa xam man euh, ñu ci bëri dañuy wax ni que ni li ngeen bokkoon manager xëy na manager bi moom la gënoon tal que yéen loolu bokk na ci li tax ngeen gedd génn ci ci ci manager ban leeral ngeen indi ci non du gedd boo nee gedd da ngay ni kuy wax ak ay ay ay ay gamin quoi <laughs> du gedd Mayacine Gueye c'est un frère ñun man am naa droit su ma demee ba sentiruma yenn affaires yi mm-hmm. ma woo Chérif sax ne ma demee ma sànq ma woo ne sax est-ce que doo yeggal sa carrière parce que sans directeur mooy chérif ak nit ku nekk am nga droit di dem ba benn moment nga taxaw xoolaat li ngay def. Mhm. ku ci nekk am na droit. Mhm. ay frustration du gedd du jeelaa du kii. parce mhm. que genre jeelaa ba muy ñëw lan la ko li ngeen la ko. tu comprends nga yàgg na ci si bi. ñu ñàkk ñu fayda ba boobu temps boobu yëpp lool di ñu déranger ñu ko fiy bàyyi. man ku ma xam-xam ne loolu man ñàkk fayda boobu nekkul. amul benn tuuti fiiraange bu nekkoon seen diggante. non non pourquoi ñun plateau yu ñu que jeelaa joué ko. plateau yoo xam ne joué nañ ko bii Sénégal. Mhm. est-ce que Dieyla joué na ko. waaw est kon du manager bi tey euh, euh, plan bi ngeen ko joxoon soit coin euh, bi nga xamante ni moom ngeen ko joxoon pour mu liggéey ak yéen da koo mënut da cee foorul voilà. non mais ya maillage nga il est am na fu bari foo xam ne moom yóbbu nañu fa. d'accord manager bu am charisme la am na respect il est bien. ñu ngi rafetal rek waaw. non du rafetal su ma du rafet rafet bu ñaawoon ma ñaawal ko de mhm. man. laaj ma Sénégal ba ñaar ma ñaar ndax mais est-ce que est-ce que fi ngeen ko tegoon place boobu mënoon na ko. mais mi ngi ko doon joob di may joobal Dieyla Dieyla lan nga gis di gis da ngaa gis Dieyla en loolu mooy ménagement ménagement kañ mooy nga fexe ba jaay sa. kon kay li di wax dafa mel ni dëgg la parce que ñu ngi doon wax que promo Dieyla moom la gënoon tal que seen promo. yow léegi lan lan léegi ban promo lañ taloon. non pour mu jàppale la leen mu jàppale leen parce que tey jii xam nga euh, nekk ak ménageur par exemple yéen ngeen nekk groupe euh, nee nga label la léegi tey jii mu di leen jàppale di jàppale aussi ki nga xamante ni moom moo di jëy laa mais tey dafa am vingt am est-ce que koo teg vingt teg leen. un un ménageur du jàppale. ménageur liggéey la. d'accord c'est du travail. Mhm. comme benn kii day photo shooting. Mhm. photo liggéey la parce que dafa ñëw. luwee fii peinture ko defal ay décor am mhm. di photo ñu koy fay mhm. xam doo jël photographe bi rek loolu liggéey la ménagère da ngay dem li joo bi boo amee benn benn marché deux cent mille mu am ci quinze pour cent d'accord loolu liggéey d'accord kon ñu mën a jàpp que mais loolu divorce am na nga ne mais divorce am na si mais mosuñu marié ba divorce <laughs> bàyyi leen waxul divorce kañ lañ marié <laughs> mais mais leen non moom moom joobatuñu. Ah, joobatuñu jeeraane ko ci sujet bi ak ban moom. loolu am na solo ban nga bëgg ma leeral. d'accord léegi bi may jeexal boobu nañ ko. léegi ñu ngi nuyu <laughs> d'accord léegi fi ma koy jeexalee nag euh, nga tey. Ah, waaw d'accord loolu am na solo loolu lépp am na solo parce que loolu moo. leen doon ci xel non dama sénégalais yi foog ngeen euh, foog foog sénégalais yi am benn esprit. Mhm. que suba mën nañoo gis Serifou di def musique am te dooñu gis Job sa Brain. lu leer comme Job sa Brain di def musique am dooñu gis Serifou te ñëpp ñu nekk ci jàmm. loolu mën na ne wala. am lu mën a nekk la parce que genre euh, keroog maa ngi dajanteeg benn journaliste am na ku ma ci woo sax di ma expliquer. Mhm. di ma wax ah, foog ñu def émission ci loolu ma ne ko man ma toog def émission ci loolu pourquoi. parce que général ba pare loolu dafay euh, détaillé loolu yow. ay mhm. mais dafay baax ngeen di leeral parce que da am ay fans. non su ma demoon ba ci télé bi gën a mag ci Sénégal. ñu mhm. toog ba mhm. jàkkaarloo yëpp senegale ah. li ma la wax nii laa fay wax. loolu ngay waxaat. wax dëgg fa yàlla <laughs> dañ doon liggéey. ba benn moment job bi foofu la mënoon yem liggéeyatuñu musuma xam lu ñaaw ci moom. il est respectueux te am na charisme. d'accord comprendre mhm. léegi nag euh, yeneen affaire yi moom yi nga xam ne mbedd bi ñoo koy wax. loolu moom ñoom la concerne. d'accord su comprendre am na ci solo. waaw ñun ñun li ñu li ñu xam di ko dund muy dëgg. parce que euh, genre am am na nit ñoo xam dañuy taxaw di wax. kii dii di ñun suñu suñu carrière mosul am frustration. Mhm. lu comprendre ñun boo xoolee artiste bi gën a mag Sénégal def nañu ak moom fi tëddee musu musuñu am frustration suñu ah. carrière seen yu gën a mag yéeg nañ fa mm-hmm. boo xoolee ci trois ans yi def nañ seen yu gën a mag ci Sénégal su mm-hmm. comprendre pour man ñun musique Sénégal sax wax dëgg fa yàlla mm-hmm. ñun ñu ngi xool sax ñun corrigé xool nu ñuy génnee musique bi bii Sénégal parce que sonn nañu ci interview yeeg <laughs> télé yéeg concert yi <laughs> fans yi leen di ñaan ngeen ñaanal la ñuy représenté. musique mais fans yi duñu d'accord loolu loolu duñu ko d'accord. non ñu koy représenté Sénégal maanaam euh, genre. Wally Seck loolu lay ñaan yàlla. Mhm. génnee fi musique bi représenté Sénégal. Mhm. tamit nan ñaanal ñu nekk ci loolu parce que après fii c'est la routine quoi. d'accord. routine bi rek ngay defaat. Mhm. bëgg nañu ñu représenter euh, Sénégal comme ni ko Akon Beng. comme keneen ak keneen. Euh, jërëjëf Diop euh, fi ma koy jeexalee mooy euh, fi nga xam ne foofu nga daanelee mu di Wally Wally Ballago Seck ku ne xam na ni def ngeen ak moom son te loolu bokk na ci li nga xamante ni xëy na dina marqué bu baax a baax seen empreinte tey jii ñu gis ni jamono ji coow li bari na ci moom LGBT drapeau t-shirt def ngeen ak moom son tey ban jàngan ngeen am ci li ni mel. waaye def nañu moom son bu tudd na weli son bu weli sax bu neex. bu wéyoo turam macha allah. <laughs> donc track bu sénégal yi bëgg. donc euh, bon ñun en tant que frère euh, lu ñu mën a wax ci situation bi. mooy mm-hmm. euh, vraiment. Mm-hmm. ñun li ñuy dégg neexuñu quoi. tu vois parce que ñun xam nañ kan Baye Fall te réel la. réel la waale bi ma koy bi ma koy xam boobu uh, yàgg na boobu mi ngi préparé premier album moom période boobu mi ngi woon Damel bon maa ngi doon job ak butu Lumi Couture Aïcha donc foofu la logé woon bu ñu mësaan dajante Baye Fall ma réel moom laa ko fonkee ko mm-hmm. ba yàlla boole ñu tey ñu dem man ak job sa brand ñu def ak mu affaire bi te période bi ñuy job ak moom aussi nit bu modeste ngay gis bàyyi faal ko bëgg liggéeyam et tout donc euh, oto yi ci kanam nag la ñuy corné quoi. Mm-hmm. xam nga àdduna moom moo bindoon noonu mais ñi ngi woowaat àdduna yëpp woowaat Sénégal yëpp nañu bàyyi détails yi bàyyi riirandoo bi tu donc te ñu xam ne aussi dafa am fu ñu bokk. dañ ñu dañ ñu yar ci diine ñun ñëpp ah. Mhm. comme xam nga moo xam moo xam catholique bi la moo xam musulman bi la donc nañu nañu nañu bokk nañu bokk ci ñi nga xam ne dañuy dañuy yaroo maandu. Mhm. maandu mooy booy wax na nga wax lu la leer. kàddu yooyu ñuy dégg di diis na trop. Mhm. boo koy seede na nga seede lu leer lu wóor parce que tumaroo moo tax quoi. lu waaye wax di nga ko waxaat lu waaye seede di nga ko seedewaat ku seede lu la wóorul nag ah tumaroo yaa ngi lijjanti de. comme xam nga donc man daal maa ngi woo Sénégal yëpp gën a conscient gën a dal. ñu gën a conscient gën a dal te bàyyi détail. d'accord Diop tey jàpp nga ni euh, vidéo bu nga xamante ni génn na euh, def ko lu war la. bi waale def. Mhm. bi mu ko waree def dafa yàgg. man pour man sama sama diagnostic ba mu ko waree def dafa yàgg. Mhm. parce que genre man man de laa lay man bu ma di góor jigéen ma woo site yëpp ne leen duma koo jigéen. Mhm. comprendre man sama responsabilité boobu laa lay wax parce que genre man tax le gars def nañu sound xam naa ko. su comprendre mhm. te gis naa ci moom Baye Fall quoi. d'accord mooy li Chérif di wax rek ku ci nekk booy seede. Mhm. li ma gis laay seede. d'accord dëgg fa yàlla. d'accord ke ma gis moom. Mhm. ah njort naa ni du jigéen. tey boo amoon conseil boo xamante ni moom nga ko jox ci li ni mel mu daal di may tuus waat mu xool yenn colin yi wala mu xool yenn image yi nga xam ne moom mooy nekk derrière euh, mm. écran bi. non mais du du moytu moom fii kenn mënatu koo def xam nga tax mënatul moytu. parce que dafa nekk ci kanamu scène Jéesi dafa ne ci kanamu seen bi tapet du fa taxaw. ci kanamu seen bi maanaam boo fa nekkee nit ñi dañuy taxaw xabtal la ñii naa xuux bëgg nga daw ak yooyu noonu. Mhm, mhm. lu nekk dañ ko def sa sa papa da nga ko war a préparer psychologique sa yaay sa jabar sa gel ñëpp dañoo war a préparer wu psychologique. parce mhm. kenn mën na xëy rek ne la joom fii laa xorom mu mandi bay daanu. parce que da lu lu nekk ngay dégg. tu entends tout. su comprendre parce que. àdduna noonu la demee ko mhm. parce que loolu loolu la yàlla dogal. ci mhm. ci nit bu jiitee. ci comprendre léegi moom psychologique am na gën a dëgër rek. Mhm. mu xam lan lay def. kon jàpp nga ni dañ koo sampaay gët. mais Wally Seck mooy numéro un Sénégal. loolu nga wax. ah maa ngi jégalu l'école <laughs> non mais genre xam nga dafa am lu tudd statistique. ak diagnostic. tu bu moom nekk na artiste boo xam ne bu génnoon ne xees a ñëpp yuuxu waaye mm-hmm. def na lii su mm-hmm. comprendre mm-hmm. fii artiste yëpp ay rêvé koo xam ne presque dina am data mi bul comprendre ñaata la kii foofu la ñuy defee statistique pour pour wax ni moom mooy numéro d'accord comprendre xam nga bu fekkee ni dama la ne moo dàqa way Sénégal ci nga mënoon wax job loolu foo ko teg parce que am na ñoo xam ne ñii feeñ nii sax am na ñoo xam ñoo ne daa de mosuñoo siiw loolu ci beneen ni moom ngeen koy jox non man moom mun ma ko conseiller quoi. d'accord c'est pour mu gën a pour mu gën a focus ci li muy def. Mhm. xam lan lay def. Mhm. jéem a jubal yoonam xam ni ku jiite moom mooy mooy demee noonu. d'accord Chérif ban conseil nga koy jox li nga solo Diop wax na ko. Mhm. mentalement mu gën a fort. d'accord xam ne dina dégg déggagul dara. boo nekkee leader moom lu nekk di ko dégg yaay pare pour taxaw rek pour ceene. d'accord donc mentalement na gën a pare. bon entourage bi gën a pare. gën a off détail liggéey avancé parce que ñun ku nekk loolu ngay xaar ci sa morom ah. mhm. liggéey avancé ñun ñuy gisaguñ dara déggaguñ dara li ñu fi wax ne ci détail xam nga détail mbedd la su ma neexoon loo fi wax détail ma ne dama nga laaj ci yooyu pour nekk kilifa avancé donc maa maa ngi koy conseillé mu gën a pare mentalement mhm. gën a ne ci li mu nekk mhm. wax ji sax jaru ko focus avancé ñu ñu ñu dem suñu tey lan mooy seen ay projet album waaye projet album ci lañ nekk. Mhm. Euh, bu war a génn incha allah fii ak septembre si tout va bien. bu lépp mhm. baaxee. comment nga bu lépp sotee mel ni mu war a mel. nañ leen jox album bu dóob. Mhm. avant album bi dañ am yeneen euh, yeneen vidéo clip. yoo xam ne war na topp ci daago bi incha allah. lépp ci promotion album bi gunge ko. na Sénégalais yi xaar daal xam ne ren moom dinañ leen jox ay affaire yu doy pour ñoom. incha allah ñu bàyyi la nga tàggoo sant gërëm naa ñëpp sant naa ñëpp. fan Chérif Diop Sabreen yëpp di wax gars yi ne donc dañ dem ci YouTube bi daagul mi ngi foofu. Mhm. jongama yi taay fil yeeg taay fin yeeg driyanke yi dañ ñëpp daagu. <laughs> ñoom ajeeg ñoom. ñoom <laughs> nogay. <laughs> voilà nañ ñëpp daagu donc mhm. di jaajëfal euh, jàmm ji. Mhm. info. di rafetlu déplacement bi émission bi nice na ku mën a laaj nga nag. ku mën a laaj. ñu sant la gërëm la laaj la aussi fan si tey fan lañ leen mën a xaar ci lu jëm ci wàllu boîte de nuit. yee am na lu ma la bëgg a wax mooy que ñu ngi lay char ci ci invitation bi parce que diagnostic yeeg sob sob sobaay yeeg yooyu noonu ñu ngi lay félicité ci loolu. Mhm. waaw parce que ñun moom interview bu ñu ko defee tey balaa ñu ko def. tey yàlla xam mais <laughs> dinañ ci gën a góorgóorlu comme li may xa li may xasee ci téléphone bi incha allah waaw xam naa ni après tabaski bi. Mhm. am nañ ay tournées ci régions yi quoi parce que dañoo bëgg a songu régions yi parce que war nañoo dem Tamba le 24. Mhm. le 25 ñu ngi Kédougou def tournée nationale. waaw war nañu dem soo ko su comprendre parce que euh, dañoo am benn public na bu xaw a gannaawee ci côté boobu noonu. Mhm. ñii ñuy kii. Mhm. bu ñëwee ba album bi gën a jege. ñii dinañ commencé yenn répétition band yi pour mën a dugg ci. ci ci ci secteur la daal bi. incha allah jërëjëf di la siyaar di siyaar képp ku ñu doon seetaan. leen bëggee waa jàmm ji. di leen wax ngeen may ñu ngeen may ñu jàmm ci réew mi. <laughs> incha allah jàmm ji du fay te du jeex ci noonu rek laa leen di euh, santé di leen gërëm euh, vraiment ñoom tamit ñu nekk ay frères yoo xamante ne ay frères yu baax lañ euh, vraiment yu wàccee seen bopp parce que rek bu ngeen déggee seen biir ay wax ñoom egg nañ fi nga xamante ne bari na artistes yoo xam ne bëgg nañ faa egg te mënuñu faa egg kon donc ñoom duñu ñu ndaw vraiment nag balaa maa am interview bi sonn naa daj naa lu nekk job wax naa bay bëgg a dee <laughs> mais alhamdulilah lii laa ñoom ñooy seetaan à chaque fois jàmm ji info ñuy am mbégte bànneex di gis seen ay fans si suñu euh, écran tey ma indil leen ak euh, ma indiloon leen euh, ki nga xam ne moom moo di Chérifo ak Job Sabren ñu sant leen gërëm leen duñ leen sax encouragé parce que ñoom ñoo vraiment gis ngeen li nga xam ne loolu la ñuy def noonu laay jaajëfalee sama cadre Cheikh Omar Dramé di jaajëfal képp koo xamante ni rek yaa ngi saxoo di ànd ak jàmm ji info jaajëfal le PDG Mountakha rendez-vous à très ci beneen émission Aja avec merci beaucoup